bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa radiya allahu tabaraka wa taala an saxaabati rasulillahi salla allahu alayhi wa sallama wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim yu ba léegi ci leçon yi ñu mën a tiiree ci xadis julay ji di xadisu fanweer ak juróom benn tolloon fi yonentu sallallahu alayhi wa sallam di waxee ne wa majtamaa dajeewut wa majtamaa du dajee qawmun aw nit fii baytin cib néeg min buyootillaahi ci néegi yàlla yi aw nit duñ dajee mukk mm-hmm. ci néeg mm-hmm. ci néegu yàlla yi mm-hmm. di fa def lan yatluuna kitaab allah di jàng téereb yàlla bi wa yatadaarasuunahu di ko jàngante baynahum seen diggante illaa nazala lu dul wàcc na illaa nazala lu du dana wàcc alayhim ci ñoom mhm. assakinatu dal mhm. wa xashiyat um dikkal leen rahmatu yërmande yàlla waaw mhm. wa xashiyat hum muur leen rahmatu yërmande yàlla xafat hum peeg leen al malaayikatu malaaka yi wa zakarahumullahu yàlla tudd leen fii man indahu ca ne ca ña ne fa moom kooku xamal ñu ñaari mbir yu am solo hmm. buyutullahi hmm. ak kitaaballahi hmm. wala kitaabullahi buyutu am solo gi néegu yàlla yi am solo ak am solo gi téere yàlla bi am solo moo jox solo daje gi moo jox solo jàng gi moo mm-hmm. jox solo jàngante gi mm-hmm. Mm-hmm. daje ci néegub yàlla mm. te néegub yàlla yi mooy jàkka yi mm. yonentu wax na ne taxabul mm. bilaadi ila allahi masaajiduhum fi gënal yàlla ci réew yi yooyu néegam yi mm-hmm. jàkkam yi mm-hmm. fi yàlla gën a bañ ci réew yi mm-hmm. mooy marché yi du ne jëmmi marché la bañ waaye ñaareel ne ci marché di fàttaliku yàlla dul bari ki ne ci marché toujours àdduna rek la xelam bi daj marchandise mi mu am ak mi mu amut client bi mu mën a jaay ak nu muy def ba am ca moom dara mm-hmm. looloo tax mm-hmm. gannaaw fu ñuy fàtte yàlla la mm-hmm. ah, yàlla du bëgg fu ñu koy fàttee jàkk nag mooy néeg yi nga xam ne ñoom la yàlla jagleel boppam ba nga xam ne ku fa dugg rek ku mm. dugg ci yooyu rek sa xel daj ko subhaanahu wa taala waaw moo tax doo fekk ci alxuraan fu mu tuddee jàkk mm. lu dul mu laafal ko turam wu tedd wi ngir ñu xam ne jàkka du jàkkay jiw waaye jàkkay yàlla la moom ko njëkk a tudd ci alxuraan wa man azlamu mimman manaa masajid allah kenn gën te mën a tooñ kuy tere jàkka yàlla yi ñu tudd fa turu yàlla an yuzkara fi hasmu wa saa fi xarabiha suratul baqarati suuratu tawbati mu ne innama yacmuru masajid allahi man amana billahi kenn du dundal jàkkay yàlla yi lu dul ñi gëm yàlla gëm bis masajid rek innama yacmuru masajid allahi man amana billahi ci suuratu النور من في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ay néeg yu yàlla digle ñu yëngati leen mm-hmm. dafa tudd turam mm-hmm. Mm-hmm. ay eh, góor te bu jubloo góor rek mu ci jublu ay jaamam yoo xam ne danañ fa sàmbal yàlla suba ngoon ñoom ab commerce baa am njaay leen soxlaal walis yàlla leen soxlaal walis taxawal julli tax seen xel fu toll ñun ci bés ba ñuy daje seen borom yaxaafoona hmm. yawman hmm. tataqallabu fiihi l-quluubu wal absaar mu ko tuddee ci suratul jinni mu ne wa anna al-masaajida lillaahi hmm. falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan ba mu ko tuddee ci suratu quraysh falya'budu rabba haadha al-bayti alladhii at'amahum min juu'in wa aamanahum min khawfin aw nit nag hmm. buñ dajee ci barab boobu di fa jàng téereb yàlla bi hmm. <coughs> yàlla dana leen defal ay mbir hmm. bokk na ca sama borom dafay indi yërmandeem maanaa dalam dafay def ci ñoom ak dal tudd yàlla rek mooy tax xol dal alladina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله alaa bi zikrillahi tatma'innul quluub waaw mm-hmm. koo gis dalul rek mm-hmm. xamal ne digganteem ak zikar mm-hmm. am na lu ca dox te zikr nag ba ca gën mooy alquran ndax waxu yàlla bañ na ko sax ba tuddee ko zikr wax na ne ñun ñoo wàccee ak zikr noo koy wët inna nahnu nazzalna dhikra wa hmm. inna lahu la xaafidun hmm. wax na ne képp koo xam ne jox nga gannaaw sama dhikr ji dund hmm. gu naqadi nga yam man arada an dhikri fa inna lahu maishatan bankan wa nahshuruhu yawma alqiyamati am wax na ne ku jox ginnaaw zikkar si al rahmaan ji alquran hmm. dañ koy bàyyi ak seytaane ma hmm. ànd ak moom hmm. di ko fooyee yàq addunaam yàq alaxiraam wa man ya'shu an dikri rahmaani nuqayyid lahu shaytaanan wa huwa lahu qariinu wa innahum la yasudduuna an as-sabiil wa yaxsabuuna wala wa yaxsibuuna yëpp innahum muhtadun Mm-hmm. comme tuddee na alxuraan zikr mm-hmm. mooy zikkar si gën a mag mm-hmm. wa in kaada wa in kaadu nan la ko waxee wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka jàng nañ ko la yusliquunaka jàng nañ wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim lamma samicu zikra muy alquran wa yaquluuna innahu la majnun ma huwa illa dikrun alamin kon dajee ci jàkka di jànga alquran dafay indi sakinatu dafay indi ak dal dafay dal te dal rek moo mën a sauver jullit ci àdduna ba mën a sauvé ci àllaaxira dal ko yàlla wàcce mm-hmm. huwa alladi anzala sakinata mm-hmm. fi qulubi almuminina mm-hmm. li yasdaadu imaanan maa imaanihim am na ayaat yu ñuy tuddee ayaatu sakinati ci biir alquran bi ah, dañuy wax ne ku koy faral di jàng yàlla daf lay may dal waaye comme ci biir alquran la de lañ de sooy jàng alquran rek nga am dal nga nekk mbooloo ndax yadullahi ma aljamaati yàlla yi wàccee ci ñooñu la yërmande yàlla nee na sama yërmande yaatu na ba ñëpp xacc waaye dëgg dëgg yërmande ji nag maa ngi ko bindal ñi xam ne ñoo ragal te ku takkoo wut ak alxuraan néew na nga mën a ragal sa rahmat nan ko waxee wasiat kulla shay waaye fa saatuha lilladina yattaqu yutuuna zakata walladina bi ayatina yuminun kon bari googu kaar nga xam ne mi néew am nañ ci waaye am na rahma xoosa goo xam ne nag Hmm. liñ koy jagleel ñooñu nga xam ne hmm. ñu ngi ah, géewu di jàng alxuraan hmm. di ko jànganti malaaka yi peeg leen yàlla maanaam cee ña ne fa moom jàng alxuraan nag benn muy mbooloo ñuy jàngandoor ci benn baat ni ki ñu doon def sànq mm-hmm. wala mm. mu nekk ala sabili taalimi kenn mm. di jàng mm. ña ca des di ca topp ni nga gisee muy amee ci daara yeeg l'école yi mm-hmm. jàngalekat bi di bu waxee ña des topp ci moom mm-hmm. wala kenn di jàng ña des di déglu keneen jàng ña ca des di déglu keneen des di déglu loolu nag mën na nekk ci ñaari xanam hmm. benn hmm. kenn bu jàngee ñi ci def di déglu lam jàng la ñuy baamtu hmm. jàng aaya ma baamtu ko keneen baamtu ko keneen baamtu ko wala nga jàng page ba mu jeex man it ma jàngaat même page bi keneen jàngaat même page bi ba bañ jeex nga continuer ci beneen loolu dana dimbale ñiy jàng pour mokkal mm-hmm. waaye dana dimbale ñi mokkalit pour mu sax ci seenu mm-hmm. mokkal mm-hmm. wala nga jàng aaya ma jàng laaya ja ca topp kii jàng laaya ka la jàng laaya ja ca topp wala nga jàng page ma jàng page ba ca topp kii jàng page ka la jàng page ba ca topp yëpp façon bu dajee di jàng alquran la ndax kii jàng mm. mi ngi jaamu yàlla mm-hmm. waaye kii déglu it mm-hmm. mi ngi jaamu yàlla mm-hmm. déglu alxuraan ni jàng alxuraan amee yoon la amee yoon yàlla moo moo ko déglu wa ida quriya alquraanu fastamiu lahu wa ansitu loolu dafay nekk wala ñun ñëpp ñu ci jàkka ji ku nekk toog ci wet wàllam yore kaamilam di jàng yooyu yëpp dajee ci jàkka ji la di jàng alxuraan mm-hmm, mm-hmm. waaye tadaarus nag moom mënta am mm-hmm. lu dul melo yu jiitu yi ma wax lu dul ci melo yu jiitu yi ma wax yàlla bu daafalee jàkka jëmmam ju tedd ji daf ko teral ku idaafatu tashrif la ndax lu ñuy daafal jëm ci yàlla benn muy melow yàlla mm-hmm. wala muy jëmm ju taxaw ci boppam mm-hmm. yàlla daafal ko mm-hmm. ko jëmmam ju subhaanahu wa walla wala loola di melo mm. ci e, jëmm mm. sax mu dee melo ci jëmm jëmm la ju taxaw maanaam loo xam ne mm. melo la yàlla dana def idaafa fekk la mu daafal boppam meloom la moom yàlla dana def idaafa fekk la mu daafal boppam jëmm la ci mbindeefa bi mm-hmm. dana def idaafa te mm-hmm. fekk la mu daafal boppam melooy jëmm la ci mbindeefa bi mm-hmm. Hmm? su fekkee yàlla tabaraka wa daafal na boppam eh, rahmatu rahmatu meloom la mooy rahim bu daafalee boppam dégg nga eh, alkitaabu mm. wala alquran mm. alquran meloom la mm. téere bi meloom la mm-hmm. mm-hmm. alquran meloom la mm-hmm. waxam la wax melo la ci aju wax ji kon laafal na boppam melo ci meloom bi subhanahu wa bu fekkee nag lu mel ni jàkka la jàkka jëmm la joo xam ne ci jëmm la ci mbindeefam yi bu ko daafalee jëmmam ji yàlla dafay teral dafay wane fonk gum fonk jàkk mm-hmm. moo mm-hmm. tax fi baytin min buyootillahi mm-hmm. fi baytin min buyootillahi ak baytullahi kaabatullahi yooyu eh, idaafatu tashrif la idaafatu tashrif la wala naaqatallahi ca suratu shams naaqatallahi wa suqyaaha eh? idaafatu tashrif la waaw yàlla buur la hmm. te gis nga buur ci liñ xam ñun hmm. dafay am euh, ngàngunaay hmm. dafay am palais dafay am néeg dafay am waruwaay yooyu yépp nag mu daafalee ko boppam ngir teral yooya waaye bu ne naaqatallaahi kenn du gis yàlla war war waruwaay kii gëlam mbaa lulul gëlam bu ne baytullaahi kaaba gi mbaa jàkka ji soo ko ubbi woon doo gis yàlla mu toog fa mm-hmm. bu arashid noonu mm-hmm. ak kursiyu mu mm-hmm. ne wasi'a kursiyu samaawaati wal arda doo foog mukk ne kursiyu bi ab chaise la booy fekk yàlla topp yàlla gënta ne ci kursiyu ba ni nee fii la nee foofu waaw ni nee arash la nee ci suufi juróom-ñaar la nee fépp ndax nee na mi ngi ànd ñun suñ mënta nekk wa huwa maakum ayna maa fa aynama tuwallu fa samma hmm. wajhullah foo jublu rek yàlla am hmm. ni ki nga xamee ne ñun mënuñoo xellu jëmmi yàlla ji hmm. mënuñoo xellu it eh, neey waaw ah, ñu bëri problème bi ñuy am mooy seen aqliyatu rek la ñuy xalaatee yàlla moo tax wakk ñu wut benn góor gu mag goo xam ne ma nga ca kaw chaise am nit ñi demeewut noonu waaw nitu yàlla ñu ne lu sa xel daj rek hmm. yàlla wutee na ak loolu hmm. subhaanahu wa taala hmm. kon mu ne naqatallaahi ak baytullaahi yooyu daf leen teralee laafal leen boppam rek idaafatu tashrif la wala loo xam ne melo la ci jeneen jëmm lu mel ni ruux gi nga xam ne melo la ci suñ jëmm yi wala ruux gi nga xam ne jëmm la ci suñ jëmm yi melo la ci suñ jëmm yi wala jëmm la ci suñ jëmm yi euh, mu daafal ko boppam ne mm-hmm. fa nafax naa fiiha mm-hmm. min ruuxina mm-hmm. Hmm? maanaam eh, fa ida sawaytuhu tamit wa nafaxtu fiihi min ruuxi duñ ca namm ne ruu googu mooy ruu goo xam ne melaw la melaw yàlla la wala dogit la ci yàlla xaashaahu subhanahu wa taala waaye hmm? ruux la ci ruux yu bind rek ruux la ci ruux yu bind rek dégg nga moo tax dafa bind ruux wal ko ci aadama hmm. ni mu waxee ne euh, isa ruuxun minhu hmm. ak ruu la gum bind rek hmm. dégg nga jox ko def ko ci isa wala def ko muy isa ndax boo xoolee isa intervention góor amul ci bindam mu mel ni kon ruuxi la yàlla jël rek dégg nga sànni ko ci biiru ndeyam waaye ruux la gum bind rek nag ak ruuga lum tedd tedd moo tax mu ne inna mathala isa indallahi ka mathali aadama xalaqahu min turaabin summa qaala lahu kun fa yakun borom xam-xam yi ñu ne loolu mooy nirolee mbir ci mbir mu ko gën a tuuraanke waaw ñi nga xam ne dañuy yéemu ne isa gannaaw amut bàyyi te ñun ñëpp am nañ bàyyi ah yàlla rek mën a doon bàyyi subhaanahu wa taala loolu la ñu gëm loolu wax ne ku ne am na bàyyi isa nag amul bàyyi kon yàllaay bàyyam yàlla ne isa hmm. misaalam mooy hmm. misaalam aadama rek hmm. loolu li bëgg a wax mooy bu leen isa yéemee ci ñàkk baay mu aadama mi amul day ak baay nag ah, isa moom lu ak lu mën a dox am na ndey yàlla lu ne la bindee ngir ñu xam ne dafa mën bind na aadama amul ndey amul baay mu bind xawaa mu am baay te amul ndey mu bind ñi des ci ñun mm-hmm. ñu am day am baay mm-hmm. am na lu des mm-hmm. mooy ko am day te du am baay ah. ngir ñu xam ne mënee na yàlla mënee na nu ne moom benn na nu ne ndax defee na nu ne yàlla mënee na nu ne ndax defee na nu ne kon nag yërmande yàlla dana peeg ñi ne ci néegu yàlla bi dégg ci wet gu nekk hmm. waaw hmm. ku bëgg daal foo toll yërmande yàlla neeg yow hmm. del bari looy ne ci eh, néeg yàlla di fa jàng alxuraan rawatina ci mbooloo rawatina ci mbooloo buñ dajee woon fenn di fa jàng alxuraan danañ yool de waaye yool mu spécifique bi mu tudd moom ci néegu yàlla yi la ko tudd néegu yàlla yi nag buñ ko jooyalee suñ xeli jàkka yi lañuy ñuy daj mm-hmm. donte nit mën naa wax ne néeg yëpp yàllaa leen moom mm-hmm. subhaanahu wa taala mm-hmm. ci jànge it yàlla teraanga gum teraangaal doomu aadama ba tàggatal ko malaakaam yi nga xam ne ñooy mbindeef yu tedd yoo xam ne amuñ dara ci tilim amuñ dara ci bàkkaar seen lépp mbaax la seen lépp kawe la seen lépp leer la yàlla dafay teralee jaama bi bu ñu nee ci li ko neex hmm. malaakaam wi peeg leen hmm. peegub teral hmm. ngir téerab yàlla bi nga xam ne ña ko tiim di ko jàng malaaka yi ay eh, ci alam xayb lañ bokk ah, waaye ay mbindeef lañ yoo xam ne yàlla ko leen bind ñu am ay façon am aussi ay liggéey yu bokkut ku nekk ci ñun am na malaaka mu nekk ci ndeyjooram mm-hmm. am malaaka mu nekk ci càmmoñam mm-hmm. maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mm-hmm. ñu ne ñaari malaaka yi kii raqib la tudd kii atid la tudd am ñu ne raqibun atidun sax melo la eh, ci sama borom taala lu ci mën a xew rek am na malaaka mu ne ci eh, ndeyjoor bind yu baax yi am mu ne ci càmmoñ ñu bind safaani wal iyaadu billah yàlla sax def na leen hmm. ci beneen euh, laaya hmm. mbooloo hmm. Ah, kiraaman kaatibiina yaalamuuna ma tafaaluun ah, am na malaaka yi xam ne ñoo ànd ak ñun di ñu wët ñoo ànd ak di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu wët nga xam ne dara mënuñoo jot lu dul loo xam ne nii yàlla moo ko bàyyi moo moo moo ñu war a jot waaye bu dul loolu ñoom ñoo di ñu wët ñu ko waxee ci sóoratu sóoratu raad mm-hmm. Ah? Mm-hmm. am na malaaka yoo xam ne mm. seen liggéey mooy indi waxyu gi mm-hmm. mooy seydina jibril alayhi salaam moom mooy ki nga xam ne moom la yàlla togg mm. muy yonantam mm. ci yonant yi alayhimu salaatu wassalaam malaaka yoo xam ne seen liggéey mooy oh, dégg nga natt wërsëg yeeg yi ci aju mm-hmm. mel ni Mikaayil mm-hmm. ndax mooy natt taw beeg mm-hmm. yooyu lett taw mooy euh, gongeekuwaayu wërsëg yi dégg nga am malaaka la moo xam ne liggéeyam moom moo yore buftu bi mooy wal buftu bi àdduna tukki moo koy walaat àdduna ñëpp dekkiwaat ñu ne mooy Israafil ak malaaka moo xam ne moom moom wala moo groupam ñoom la yàlla dénk ruux yi am na ñu ne Asraayil la tudd alquran nag malakul mawti la ko tuddee mm-hmm. qul yatawafaakum malakul mawti alladi mm-hmm. wakkila bikum mm-hmm. thumma ila rabbikum dégg tuddee na def na ko benn ci beneen laa yi def na leen groupe mel ni kon équipe la yore hmm? mel ni kon équipe la équipe équipe la yore lu ci mën a xew daal malaaka yi am nañu ay liggéey yu bokkut mm-hmm. yàlla bind leen ci leer munuñ mm-hmm. koo mooy mm-hmm. ni ñu tëlee naaw ñun ñoom lañ tële mooy yàlla laa yaxsuuna allaha ma amarahum wa yafaaluuna ma yuumaruun ñu déggee ci hadis ji ne yàlla dara hubbut ko ci jëfi jaama bi waaw kenn hubbut ko <coughs> moom yàlla subhaanahu wa taala waaye lenn hubbut ko it ndax xam ngim xam ne yaa koy tudd moo tax mu tudd la moom it wa zakarahum llahu mm-hmm. fii man indahu mm-hmm. ndax yàlla nee na ku ma tudd ci mbooloo ci mbooloo mu gën mm-hmm. mbooloo moom ma tuddee dégg nga leen tudd fayee leen tudd gañ ko tudd ci jàng gi ñu jàng téeréem bi subhaanahu wa taala loolu kawe la yàlla tudd la lu kawe la hmm. rawatina mu tudd la tuddug teraa ngay jàng téeréem bi waaw teraa ngay jàng téeréem bi hmm, hmm. yonentu wax na ne sama borom wax na ne maa ngi sama njortug jaam maa ngi ànd ci boppam ma tudd ci sama bopp su ma ci mbooloo ma tudd ci mbooloo mu gën mbooloo moomee waaw ah, xadis ju kawe la mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. bu yonentu sallallahu alayhi wa sallam tëjee ne mm. wa man batta bihi amaluhu mm. lam yusri bihi nasabuhu ku askanam mm. yéexal maanaam ku ku jëfam yéexal askanam askan du ko gaawal hmm? képp koo xam ne euh, góorgóorlu ci jëf yu baax hmm. yaakaar askanam rek hmm. yonent ne askanam du ko jëriñ askanam du ko jëriñ askanam du ko jëriñ euh, askan wi gën ci askan wi waaye hmm. askan yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent wax na ne inna allaha astafa min bani ismaila kinaanata astafa min kinaanata qurayshan astafa min quraysh bani hashim astafa ni min bani hashim tànn na ci doomi ismaayila yi kinaanatu mm-hmm. tànn ci ñoom quraysh mm-hmm. tànn ci ñoom banu hashim mm-hmm. tànn ma ci ñoom ku ne xam na ne ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam bokkee ci mm. ci Banu Hashim ndax Abu Lahab moo ko Abdoulaye bi jur yonantu mm. Abdul Mutalib leen jur xam nga ne bu doon askan dana gaawal nit mm. te jëf te fekk jëfut hmm. Abu Lahab askanam dana ko gaawal hmm, hmm, waaye li muy bokk ak bokk ak yonantu sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na tabbat yadaa abi lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab imraatuhu hammaalatul hatab boo jàngee Hafs ak an Aasim nag da nga jàng hammaalatal hatab fii jiidihaa hablum min masad waaw yàlla mu ngi ne wax ne tabbat halku na mm-hmm. toskone na yada abi lahabi mm-hmm. ñaari loxoom la tudd waaye bu jublu ci abu lahab ci bopp mm-hmm. wa tabb wala tabbat yàlla na halaku yada abi lahabin wa tabbatalu ram na maanaam yàlla ñaan moo nangu maa agna anhu maalu wa maa kasab alalam ju bëri ji ak lam am fàggu yëpp dara du ko ci jëriñ lu tax sa yas la naaran zaata lahab dana jaaroo safara salaxa di boroomuk tàkk-tàkk amraatu mm-hmm. ak jabaram ji nga xam ne mm-hmm. mbokkam lay di umu jabe mm-hmm. xamalatul xatab fii jiidiha xablum min masad askan du rëy ba tol ni askanu banu hashim waaye yàlla seppi na ci abu lahab ak ñu mel ni moom yóbbu safara ngir lan dañoo neenal jëf jëf waaye képp koo xam ne nag jëf na jëf ju baax ndax askanam dana ko jëriñ hmm. ah kay askanam dana ko jëriñ hmm, hmm. waaw askanam ndax askan am na tasir de mise maanaam su fekkee ne nit ki mu ngi bokk ci askan bu baax baayam baax yaayam baax askanam dana ko jëriñ ci te ñu ko jàngal baax su fekkee ne it moom jéem naa baax te yeggut ci ñoom da ci daraja yàlla dana ko yéege ci seen daraja Mm-hmm. walladina amanu mm-hmm. Mm-hmm. wa tabaatuhum durriyatuhum bi iman alxaqna bihim durriyatahum ma alatnahu min amalihim min shay te yéen dana wax ne xiyaarukum fi ljahiliyati xiyaarukum fi lislaami ila faqahu yeneen ñu ñi gën ci yéen ci jaahiliyatu ci ceddo gi rek ñu gën ci yéen ci lislaam su ila faqahu dem dem dem jàng nañu dem xam nañu wala ida faqihu mm-hmm. dem jàng nañu dem mm-hmm. dégg nañu mm-hmm. maanaam ku la gën jikko rek moo la gën ñi ceddo yi ña ca gën mooy ña ca gën jikko ñooñu buñ jógee ci lislaam nag dégg nga dañuy gën a gënati rek su fekkee ne dégg nañu nga gis jëf kon ñëw na ida faqihu waaye am jikko yi wala am askan bu baax rek ah, doyut fokk borom jëf fokk borom jëf lu ñu yàlla defal dégg defal ñu topp bu la ñu bu duñu xoroo ci suñu askan waaye duñ sukkandiku ci suñ jëf donte dinañu téewoo jëf ñu sukkandiku rek ci yërmande yàlla yàlla ñu yàlla boole yërëm wala ñu yëkkatil daraja boole ñoo yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci àddina ak ci àllaaxira ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin amin